برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان baayam dalal na ko tuure yàlla bi baayam dalal ko tuure yàlla bi doom bi du fàtti loolu nu ko de doom bi du fàtti loolu nekk xalel ñett xaleel. sa yaay ak sa baay bi la yee jógal julli suba. sa yaay ak sa baay bi la yee di la jógal julli suba. saa yoo nekkee magi doo waxtu woo nekkee magi doo ko fàtte loolu. kon nag. kon. ñëpp na ngeen góorgóorlu ci loolu. yéen ñëpp na ngeen góorgóorlu ci loolu. yar ci seen i doom. yar ci seen i doom yar ci seen i doom it. léegi. jàngam lekkool moo xew léegi. kenn sañ sa doom mu joxe mu jàng ci lekkool bi. kenn sañ nga joxe sa doom muy jàngale ko. joxe sa doom muy jàngale ko. te xam-xam bu nekk sax xam koo gën ñàkk koo xam. te xam-xam bu ne dëgg-dëgg xam ko moo gën ñàkk koo xam. suñ bàyyi dañ daa bañ jàng tubaab. suñ bàyyi dañ daa bañ jàng tubaab. dañ jàppoon nag ku ko def rek ko def rek yow wuruj nga lislaam. ndax dimbale nga tubaab yi ci moom réew mi jullit mi. ndax dimbale nga ko tubaab yi. pour ñu moom réewam jullit ñi. looloo taxoon ñoom ñu bañ ko. ñoom loolu rek ngeen moo taxoon mag ñi bañ ko ñoom. waaye léegi tubaab amul ñun rek ak suñu réew. waaye rek ak suñu réew. ku sa bopp nga jàngalal sa réew rek. ku jàng sa bopp nga jàngal ak sa réew. waaye daal bul fàtte mukk sa doom balaa xëy lekkool nga ne ko jullit. waaye bul fàtte mukk ne sa doom balaa xëy lekkool nga ne ko loolu daal soo ko defee defal nga sa doom lu baax loo xam ne. loolu soo ko defee defal nga sa doom lu baax loo xam ne. bu màggee ëllëg it du ko fàtte. bu màggee ëllëg it du ko fàtte. adduna si nag. adduna si nag moomu. ni ma leen ko waxee woon. ni ñu ko bàyyi waxee woon rek. yàlla ñu moom ñun nit. ñun nit yàlla ñu moom. moo ñu bindal adduna si. moo ñu bindal it adduna bii. moo ñuy jox. moo ñuy jox it. waru ko woon mu di ñu jox. waru ko woon nag. mënuñu jox. waaye suñu joxul kenn duñu jox moo tax mu gàddul jox ñu. waaye bu ñu joxul xam na ne kenn duñu jox loolu tax mu gàddul ñu jox gi. dana joxe. dina joxe it nag. wërsëg. wërsëg. mu tàlli. mu tàlli. dana ko téye itam ay jamono. dana ko téye it ay jamono. pour jaam bi xam ne rek borom mooy joxe mooy xañe. pour jaam bi xamee ci ne boromam rek moo mën a joxe moo mën a xañe it nag. moo tax lépp lu la naqari. moo tax lépp lu la naqari. lu la jafe. te jafe la. bu ko tawati diw. bu ko tawati diw kët. wala diw. wala diw. tawat ko ci sa borom rek. tawat ko ci sa borom. fa lay fajoo. moom rek ka mën a joxe. moom rek ka nag moo mën a joxe nag. lu mu joxe kenn mënu ko téye. lu mu joxe kenn du ko téye. lu mu téye kenn mënu ko joxe. lu mu téye kenn du la ko joxe. ci nawet bu taw bu yéexee ñëw. ci nawet ñu yéexee tawlu. ñëpp dañoo delloo jëm ci yàlla. ñëpp bu xam ne ni coppam yàlla di dégg. kaamil. ñii di julli ñii di. julli. ñii di sarax. ñii di saraxee it. ndax xam ne yàlla rek a mën a jàpp. yàlla rek a ko mën a yëngu. leneen kat ni taw bi la mel. taw lépp lu ngeen yàkkamti lépp lu ngeen yàkkati ci dëgg leen ci. ñaan leen ko borom bi rek. ñaan leen ko borom bi moo ko téye. lu jafe. lu jafe it. tawat leen ko seen borom rek. tawat leen ko seen borom. kuy ñaan ñaanal yàlla. kuy ñaan ñaanal yàlla mooy borom yëpp yi. kuy dimbandikoo dimbandikoo yàlla. kuy dimbandikoo na nga dimbandikoo yàlla moom moom yëpp yi. moo mën a jëriñ moo mën a lor. moom moom jëriñ moo mën a jëriñ yëpp moo mën a lor. leneen lu dul yàlla. leneen lu dul yàlla yëpp. شكي am na lay wax. bàyyi ne su fekkee loolu xam na yéen a xam ngeen. bu amee itam mën da joxe dara. su loola xamee it dara la mën da joxe su fekkee xam na. koo xam ne mu ngi am soxla boppam. koo xam ne mi ngi amee soxla boppam. mënu ci tus. mënu ci dara. mu ngi amee tiisi boppam mënu ci. ma ngi amee tiisi boppam mënu ci dara. mënu laa jëriñ yow jaam bi. mënu laa jëriñ yow jaam bi. sa borom bi la mën a jëriñ. sa borom bi la mën a jëriñ. moo la gën a jege sa mbuum xol gi jàpp. moo la gën a jege sa mbuum xol gi ko téye. way ñaan ñaan ko. way sooy ñaan ñaanal kooku. way laaj laaj ko. sooy laaj it laajal kooku. way dimbandikoo dimbandikoo ko. sooy dimbandikoo dimbandikoo kooku moo doy. way yaakaar yaakaaral kooku. mbindeef yëpp. mbindeef yëpp. buñ dajewoon ñëpp di say xarit. buñ dajewoon ñoom ñëpp nekk say xarit. bëgg laa may. bëgg laa may. munuñ laa may lu la yàlla jox. munuñ laa may mukk li la yàlla joxul. mbindeef yëpp. mbindeef yëpp it. suñ daje woon di say laa jam jëf la yàlla jam. munuñ laa jam jëm jëf la yàlla joxul. kon kay yow nit ki noppalu nga. kon kay yow nit ki. dëgg dëgg noppalu nga yaakaar nga borom. yaa ngi ak sa borom foo ne yaa ngi fa ne moom. yow yaa ngi ak sa borom foo ne mi fi ne ak yow. tukki nga di nekk. moom tukki nga ne bu ñu gisee. faddu nga ne bu teewoon. taxut nga di ko jéggal. taxut it nga di ko jéggal li ngay wax. lu ne mën na ko lu ne am na ko. moom mën na lu ne lu ne am na ko. foo mën a ne rek. foo mën a nekk nag yow. boo ne yaa rabbi mi ngi lay dégg. boo ne yaa rabbi rek mi lay dégg. maa leen di dénk ngeen tawat jëm ci kooku te bu leen. bàyyi mu ne nit ñi dénk ñu tawat jëm ci kooku. te buñ tawat jëm ci keneen. te buñ tawat mukk suñu nit jëme ko ci keneen. te luñ tawat itam ñoo ko def suñ bopp te luñ tawat itam kat ñoo ko def suñ bopp yonent yàlla Moussa ndax yonent yàlla Moussa daf ne yàlla yaa ngi ci asamaan daf ne yow yàlla yaa ngi ci kaw asamaan man maa ngi ci suuf man nag maa ngi ci suuf di sab jaam di sab jaam it su ma la defee defalee lu la neex du ma ko xam su ma la defee lu la neex man du ma ko xam su ma defee lu la naqari du ma ko xam su ma defee lu la naqari it du ma ko xam. naka laay xamee gëdëm nga ma wala gëdëmu na ma. naka laay xamee lu lu la gëdëm loo wala lu la naqari. mu ne ko yow yow Moussa. mu ne ko yow Moussa. nu ngeen nekkee rek noonu lay fale ci yéen ay buur. nu ngeen nekkee day noonu laa leen di falalee buur ci seen kaw. su ma leen buur yi leen di dimbale di leen yërëm. su ma leen gëdëmee falal leen buur yoo xam ne dañ leen di dimbale. te it di leen yërëm. leen meree fal ci buur yu soxot di leen dóor rek. su ma leen meree fal ci yéen buur yu soxot mu di leen dóor rek. kon xanaa lu am rek ñoo ko def. kon tey xanaa na cëre loo ñoo ko def. Hajjaaj ibn Yuusufa buur la woon bu soxot. Hajjaaj ibn Yuusufa buur la woon bu soxot. ba ko nit ñi waxee ne ko. ba ko nit ñi waxee ni. maanun. Hajjaaj maanun. melal ni Omar ibn Abdul Aziz fekk nga jamono. melal ni laajti ndax yow fekke woon nga jamonoom. moom mi maandu woon ba nga xam ne. moom mi maandu woon ba nga xam ne. xalal ji dafa gëpp gëpp ba nga xam ne ku génne asaka doo am kooku sarax. xalal ji dafa gëpp ba képp ku génne asaka doo am kooku sarax. ngir maandu Omar ibnu Abdul Aziz. ngir maandu Omar ibnu Abdul Aziz. mu ne leen mel leen ni Abi Sarin rek ma dal di mel ni. mu ne leen mel leen ni Abi Sarin ma dal di mel ni Omar rek ibnu Abdul Aziz. Abu Sarin ku dëddu a la féetewoo jaamu yàlla rek. Abu Sarin ku dëddu yàlla la féetewoo jaamu yàlla rek. a ngeen a a ngeen a sàggane la Hadj waxoon li muy dëng yëpp waxoon. la Hadj yàlla mooy buur ak buur yi. yàlla moo di buur ak buur yi. moomoom buur yi moomoom xolab buur bi. moomoom buur bi moom moom it xolab buur bi. kon kay looy ragalee meram buur bi. kon kay li ngay meram buur bi. na nga ragal meram buuri buur yi. nga xam ne xam ne meram. mën naa xotti asamaan. mën naa xotti asamaan. jindi suuf si. jindi suuf si. ndem meram buurab àddina rek. ndegam rek. guerre bi ñu mujj a fekkee. guerre bi ñu mujj a fekkee. meram Hitler rek a ko indi. meram Hitler rek kat moo ko indi woon. seetal li mu yàq ci àddina. seetal la yàq ci àddina. kon merab buurab buur yi. kon nag merab. meram buurab buur yi. war naa mën a yàq lu ëpp loolu. war naa mën a yàq lu ëpp loolu xam ngeen ne. nañ muslu yàlla lépp luy merloo yàlla. nañ muslu yàlla ci lépp lu koy merloo. kon rek. kon. ñu laq ci yàlla. kon dañ laq ci yàlla. dal di raw yëpp. dal di raw yëpp ñun. li ñuy tawat yëpp ñoo ko defal suñu bopp. li ñuy tawat yëpp ñoo ko defal suñu bopp. nañ tuub tuub dellu ci suñu te jubal suñu diggante suñu borom. te jubal suñu diggante suñu borom. jubal suñu diggante mbindeef yi itam. jubal suñu diggante mbindeef yi itam. rek suñu àddina neex suñu àllaaxira neex. yàlla nag. yàlla nag moom. li muy jege jege gisuñ ko. lu jege jege gisuñ ko. mënuñoo defanteeg moom mënuñoo waxanteeg moom. mënuñoo defanteeg moom mënuñoo waxanteeg moom it. du lu baax du lu bon. doxul lu baax doxul lu bon. lépp luñ bëgg a defanteeg moom ci mbindeefam yi lañ koy jaarale. lépp luñ bëgg a defanteeg yàlla moomu ci mbindeefam yi lañ koy jaarale. soo ko gëmee. soo ko gëmee nag. def lu baax jaarale ko ci mbindeefam yi. def lu baax jaarale ko ci mbindeefam yi. rek dal di ko gërëm loo. dal di ko gërëm